fa indi li nabi muhammada sayyiduna muhammad madihun kaashaaril xamaayil tullate muhammad rasulillahi kon fa ya rabbana fi ardihi wa samaa'ihi sayyiduna muhammad amidna ala tasdi xina bistifaa'ihi muhammad rasulillahi fay naa fay naa wasul aswaaxi yaxya bi daa'i sayidina muhammad yasuq alayna alxaysu doona lixaa'ihi iza diinu lam yakmul fala kaana ti dunya iza diinu lam yakmul فلا كانت دنيا mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bi ñu sante yàlla ñu ngi julli ci sayiduna muhammad euh, ñu ngi jiital ci nuyoo bi xalif général bu Ceneba di sëriñ Assane Seck mi toog nga xam ni tey jii moo toog toogaayu maam Amary Ndack Seck Thiénaba ñu ngi koy nuyu te di ko ñaanal yàlla bay ko fi naal yi nga xam ni ay magam ak i baayam naaloon ko fi bay sëriñ Assane mi toog naal yooyu mu yeggale ko te mu sos yeneeni naal ba tey daal ku duggati cene ba xool cene ba ñu ni lii lu ko fi def ñu ni ah Serigne Hassan mi nga xam ni tey moo wut maam Amari Ndak sëriñ bi tey ñu ñëw fi nag ànd ak sunu kilifa ànd sunu sëriñ ànd koo xam ni léppam daa jeex ci rasulillahi koo xam ni bu nu ko tuddee xel dem ci sayyiduna muhammad léegi la ko mbokk mi wax Cheikh Alassane Sène ci réew mii boo boo boo tuddee turam nga bind lettre mu war a jëm si ci moom lettre ba ñu ubbi fekk ca tampon boo xam ni bëgg sayduna muhammad ah dañuy xam ni lettre bi jëm na ci ko xam ne nag lépp am yonent bi la moo tax boo boo ko bëggee am rek tuddal Moustapha moo tax nii nga ko teeroo ak bi mu ñëwee rek nga takk yonent bi bëgg-bëggam yëpp mooy alayhi salaatu wasalaam kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi yàlla yàggal ko bi muy ñëw nag def na une forte délégation délégation boobu Ahmed Saloum Dieng mu baax mi toog nga xam ni diggam ak seex bi yàgg na lool boor bi fu ñu fiy dugg ak yeneeni boor ci këru diine yu baree bari seex bi dana ànd ak Ahmed Saloum ngir taxawaayam ci réew mi waaye ngir taxawaayam tamit ci lislaam ndax loolu ku dëkk ci réew mi xam nga ko moom it mu gàttandu sëriñ bi ànd ak cheikh bi ànd ak moom ñëw sëñ Malick mii mu dendal di magi cheikh bi mook cheikh bi ñu bokk bokk lépp moom mu bokk ci delegation bi sëriñ si mi toog moom it bokk ci delegation bi ki féete ndey jooru cheikh bi mooy jëwriñ ale ndaw di doomi docteur abbas ndaw moom it mbo abbas ndaw ma ma ma dakar ma mi ñëpp xam kii kii doomam la kii mooy jëwriñu cheikh bi ci ci liggéey bi nga xam ne cheikh bi mu ngi koy liggéeyal yenent bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Asan mi itam bokk itam ci biir mbooloo mi bu naama mu ngi nii toog moom it am taxawaay bu rëy ci biir mbooloom cheikh bi waaye ñu ànd ak imam Sall itam moom mu bokk ci biir mbooloo mi sëriñ bi daal ñi ngeen ñi nga xam ni liw ma leen ñu bari ànd nañu ak cheikh bi ñëw te ñoom ñëpp ci mbooloo cheikh bi la naan kon nag tabaarakallahu fekk si koo xam ni nag yàgg nañu ñëw fii nga wax ay ngërëm nga wax ay cant nga wax ni baayam fii nga toog baayam toogoon na muy sëñ ma dikk sekk mi nga xam ni kenn la ci seex bi moom it saa suñu duggee ci dëkk bi mooy doon bunt bi moom it gàttanu sëriñ bi ànd ak sëriñ bi ndax seex alsaan ci biir Cenaba ci dëkkub maam amari ndaat saa su seex ma dikk sekk yégée ni seex alsaan a ngi tàbbi si dootul am jàmm ndax moo wax ci làmmiñu boppam ni ma moodu ba ma wuyu ko min ma cofeel gi ma ëmbal seex alsaan ni ma ko bëggee yéene ji ma am ci moom saa su ma koy xool damay yëg ni ku bëgg yonent bi lay jàkkaarloo daan ni ma na nga àggale sama sama bëgg ak sama cofeel ci seex bi wax ni ko saa su ne maa ngi feddali sama cofeel ak sama bëgg ci moom moo tax bi ñuy ñëw ca buntu bala jottandoo seex bi kon nag loolu seex bi yëg na ko dama doon def présentation wane wane mbooloo mi fi ne waaye waaye bu seex bi jëlee kàddoom li mu bëgg a wax lépp dana ko wax ndax ñëw na fi bu yàggul fekk seex abdourahim mu toog fii mu toog mu yëkkati kurus goo xam ni ay junni yu baree bari la jar yëkkati teraanga jox ko yàggaatul tey seex asan toog fi mu toog tey waaye du nuyu porte parole bii nga xam ni moo yor kaddu sëriñ asan moom it ñu fekk ko fi ñu ziyaar ko ñaanal ko lii nga xam ni jox nañ ko ko ci mu am ci ndam loo xam ni ndam lu kawe lay doon kon nag tabarakallahu xam naa ni euh, dañuy bàyyi rek cheikh bi yëkk euh, yëkkati ay kaddoom yoo xam ne nag dafa jëm ci kii nga xam ni tey moo toog toogaay maam Amary Ndak kees kees gee nga gis ñaari junniy masque la yoo xam ni cheikh bi moo la ko may nee na ngir njaboot gi ak ñi nga xam ni tam boobu ba léegi ñu ngi ñëw di ziyaar nga xam ni yéen ngi waajal bis boo xam ni mooy bisub Sayyiduna Muhammad ñu jëm ci yaakaar naa ni lii dana am solo ci pèlerins yi nga xam ni taalibe yi nga xam ni ñu ngi fi ñëw boole na ci itam benn benn kurus boo xam ni tabaarakallahu nanu ko jël oh xalifa bi tàll na ñaari loxoom nee na jërëjëf seen ne xolam sedd na ne teraanga ju la jox na ko kurus goo xam ni bu waat bi bi mu nekk rek ak kurus gi rek mën mëne su laa wax lim bi kon nag jox la na jox na la ko ngir nga ci wérd nga ci jaamu yàlla nga di ko ci ñaanal sëñ ma dikke ne jox na kurus ki ku xam kurus ku xam li ñuy wax ci kurus bi ñu fi ñëwee moom mii ci boppam bi ñu ànd ak Air Sénégal ñëw fi di def ay ziyaar ci ëttu këru diine yi ka tax ma ànd ak Air Sénégal ñëw kii kii toog si nga san kii toog di seexal san doom la doom la ci moom ba ba noppi mu yor communication nga xam ni bu ma ànd ak ñoom ñëw fi mu ngi jaari ci jëmm ji toog keroog bi nga ñëwee wax nga nu ni 1961 ba léegi yaa ngi yor tur yàlla di ko wér 1961 moo yaa ma ko wax kon kon nee na moo ko wax mille 1961 ba Cheikh Mouhamadul Mansour borom daara ji seede ni nga mënee tur yàlla ak lasraar loolu loolu kilifa yépp seedal la ko te wax nga ne loo ci musa ñaan yàlla nangu la kon nag kii tey bu ñëwee jox la jox la kurus te ba ngay wax loola fekkewu ko kon nag kon nag kon nag azaan kon nag ñu bàyyi cheikh bi mu yëkkati kat cheikh bi ne na asalaamaaleykum wa rahmatullah sant yàlla des di ko sant. ne gannaaw bi ñu sante yàlla nag des di ko sant. di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu sama waajur mi ngi nuyu wéy juróom wi toog di sunu soppe di bàyyi ci ñun di bàyyi ci ñun di sëriñ Cenaba di sëriñ Cenaba tey bàyyi sëriñ Asan Sekk muy bàyyi di am mbégte lool nee na di lool di ci jàkkaarloo gii ñu jàkkaarloo sa jëmm ji to mu nekk sant wu rëy ci ne mu doon sant wu rëy ci ñun. baaxoo nañu. baaxoo nañu. fépp borom. fépp foo xam ne xeeñtu nañu fa sunu borom. sunu jógee sunu sunu kër. sunu jógee jëm ca moom. jëm ca moom. dañuy am mbégte. dañuy am mbégte. mu kawe. mu ba ba ñu koy gis. ba ba ñu koy gis. suñu ko gisee. ne suñu la gisee. daal di daal di tabbi nag. ci mbégéré. ci mbégélé. mbégéré mbégéré. nee na ci mbégéré. moom moo gën a kawe. moom moo gën a kawe. mbégte. mbégte. mu mel ni. mu mel ni. ku tabbi it. ku tabbi it. ci tabaski lool li. ci tabaski nag lool li. nga xamante ni. nga xamante ni. moom moo jur. moom moo ci nit ku tabbi ci tabaski. ci nit ku tabbi ci tabaski. loolu la joojee. am sant gu moo tax ñu am sant gu jotaay bii. ne ci jotaay bii. ñu am ak yow. ñu ak yow. di ci sant nag bu wér. ne sant nag bu wér. sëriñ ma dikke. sëriñ ma dikke sekki mu baax mi toog. di sunu wóllare. di sunu wóllare. bu mag bu mag. saa yu ñuy dugg cene ba. saa yu ñuy dugg cene ba. moom mooy sunu bunt fii. mooy sunu buntu nag fii. te li ko sooke loolu. nee na li sooke loolu. mooy sama wóllare ak sëriñ Ahmed Saloum Dieng. mooy wëllëreem ak Serigne Ahmed Saloum Dieng mi toog. moo ma wanale. moo ko wanale. ak Serigne ma dikke mii toog te mi ngi bëgg a yàgg. ñu ëmbal ma. nee na ñu ëmbal ko. yërmande bu rëy. yërmande ju rëy. waaye du ñu jaaxal. waaye du ñu jaaxal. ndax ñiy dox ci wàllu yàlla. nee na ñiy dox nag ci wàllu yàlla. yërmande rek. ne nee yërmande rek la ñuy ëmbal jaamu yàlla yi di sant bu baax di sant bu baax porte parole porte parole fekkoon nañ ko fi fekkoon nañu ko fi fekkaat nañu ko fi fekkaat nañu ko fi tubaab di wax li tubaab di wax toujours égal à lui-même toujours égal à lui-même ci taxawaay ci taxawaay ci pas ci pas ak ci bëgg ak ci bëgg gudul dañ mukk gudul dañ mukk di santit di santit bi sëriñ bi ci taxawaayam muy sëriñ Alioune Ndoye mii ci taxawaayam ci taxawaayam li mu ñu defal léegi li mu ñu defal léegi seen ñu rek seen rek gën gi waaye waaye di tagg na gën ji mindeef lu ci ñun cheikh mi ne lu rëy la ci moom sant naa la sant na la bu wér bu wér ndax damay wax démb benn nit dafay wax démb benn nit ñuy déglu benn benn xale nee na ñuy déglu benn xale di wax ni di wax ni moom de sëriñam moom de sëriñam su demoon bis penc. su demoon bis penc. gis sëriñam taxawee nii. nee na gis sëriñam taxawee nii. gis yonent bi taxawee nii. nee na gis yonent bi taxawee nii. mu ne ci sëriñam la jëm. nee mu ne ci sëriñam la jëm. ma ne ko nag yow xa xamuloo àdduna. mu ne ko yow xamuloo àddina. ndax sa sëriñ bi liggéey. nee na sa seriñ bi muy liggéey. seey ci yonent bi la doon wut. nee na seey ci yonent bi la doon wut. kon bis penc. bis penc. munul nekk ñaar. nee mudul nekk ñaar. ndax taxawaay. ndax taxawaay. ba mu amoon ba mu amoon. ci yonent bi ci Seydina Muhammad. ci kaw suuf ci kaw suuf. loolu nag sëriñ bi. loolu nag sëriñ bi. andi nañu fi. andi nañu fi. ñu lay jaale. ñu lay jaale. sunu fi bàyyi ko woon. sunu waajur yi fi bàyyi nekkoon ku tedd. nee nekkoon nit ku tedd. bi mu ne bi nga ñu dalalee. waxoon nañu ay kaddu yu yu neex sunu xol. waxoon nañu ay kaddu yu neex ci sunu xol. yu fees sunu xol. yu fees xol. ñaanal ñu. ñaanal ñu. tatagal ñu. tatagal ñu. ba loolu le. ba mi ngi des ci ñun ba tey. mi des ci ñun ba tey. moo tax ñaar moo fi dox. moo tax ñaar moo dox. benn bi mooy ñëw jaale la ko. benn bi mooy ñëw jaale ko. beneen bi. beneen bi. mi ngi mel ni. mi ngi mel ni. moom la ñu toogaatal ba tey. moom la toogaatal ba tey. sa jëmm ji. ci sa jëmm ji. ak li lal jëmm ji. ak li lal jëmm ji muy sëriñ Amary Ndack Seck muy sëriñ maam Amary ak Seck loolu nag loolu nag lañu bëggoon rek sànni ci ay kaddu bëggoon sànni ci ay kaddu yu gàtt di la sant di la sant lanu waxoon ca jamono lanu waxoon nag ca jamono ba ñu toogee woon ak moom ba ñu toogee woon ak Cheikh Abdou Rahim moom lañ lay feddali moom la ñuy feddaliwaat jàppe nañu la sunu baay jàppe nañ la sunu baay jàppe nañu la soppe jàppe la soppe ñaan yàlla nga yàgg fi. ñaan yàlla nga yàgg fi. ñaan yàlla nga wér. yàlla nga wér. ba naal nga am. ba naal yi nga am. ko réew mi. yéene ko réew mi. mu daan feeñ. te mu daan feeñ. jamono doo doo daan nekkee di wét di di sa borom. nee na jamono ji nga daan toog di wéttalu koog sa borom. yal na yooyu yëpp. yal na yëpp. faju faju ci barke Sayyiduna Muhammad. sallallahu alayhi wa surat al-fath suma juumlee simaahum fi wujuhihim min asari sujud mhm. eh, li nga ciy dégg ne ne ne ne li ngay dégg ci aaya boobu ngay ñëw bi ñu lay tiim ngay ñëw yëg nañu loolu ci yow yëg nañu loolu ci yow beneen bi beneen bi mooy su su nit ne su nit yëgee cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne su nit yëgee cofeel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba daw jàng taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa ne ne dem jàngi taaha ma anzala alquran ma anzalna ma ma anzalna alayka alquran li tashqa Euh, soo ko jàngee. ne soo ko jàngee. dafa am benn philosophe bu mag. ne dafa am benn philosophe bu mag. médecin la nee na médecin la. nee na li doy waar ci aaya bi. nee na li doy waar ci aaya boobu. mooy même nit su amee angine. ne nee na nit su amee angine. su ko jàngee su ko jàngee. mën naa jaare foofu wér. ne ne nee na mën naa jaare foofee wér. ndax ni aaya bi bindoo. ne ni aaya bi bindoo. mu ne pulux. ne pulux. su fay jàll. su fay jàll. da ngay yëg sedd bu doy waar. nee da ngay yëg sedd bu doy waar. ci tasxaa bi. nee na ci tasxaa bi. ci daaneelu taaxaa bi. ne ci daaneelu taaxaa bi. ci ma anzal naa bi aussi li muy def sa put. nee na ci ma anzal naa bi itam li muy def ci sa put. ci barke yooyu yëpp la. nee na ci barke yooyu yëpp. sant nañu la sant nañu la. gërëm nañu la gërëm nañu la. ñaan yàgg fi. waaye waaye sëñ Assane seex bi ne mu ngi ñaan yàlla nga yàgg fi. njaboot gi yàgg fi. nee na njaboot gi yàgg fi. dëkk bi tamit. dugg itam. yëg bi ñu am soo fiy dugg. yëg bi ñu am soo fiy dugg. xel yëpp day dem ci Medinatul Munawara. nee na sa xel dafay dem ca Medinatul Munawara. dal gi fi am ndax dal gi fi am. yal na sirru boobu. nee na na sirru boobu. roofu ci réew mi yëpp. nee na roofu ci réew mi yëpp. ba doon jàmm fépp. ba doon jàmm fépp. ndax jàmm rek. nee jàmm rek. moo jik moo jik sunu réew mi réew mi. alxaqu min rabbikum. nee min rabbikum. Eh, fa man caa fal yu'min ne fa man caa fal yu'min wa man caa fal yakfur ne wa man caa fal fal yakfur wassalaamu aleykum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tabarakallah jërëjëf ne maa ngi wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noo ngi nuyu islam bi yëpp noo ngi leen di ziyaara noo ngi leen di jéggulu noo ngi leen di jéggal noo ngi leen di jéggulu waaye nu ngi leen di jéggal noo ngi jiital ci nuyoo bi bàyyi seexu canaba bàyyi sëriñ xasan sekk nekk neuvième xalifa bu canaba maam ahmadu ndaak sekk moo sanc dëkk bii ci 1882. ci 1882. way juróom. way juróom. premier xalif. nekk premier xalifa. toog fi 52 ans. toog fi 52 ans. jeexal 46. jeexal 46. 46. 46. mooy walliyu. mooy walliyu. baayam toog fi juróom fukki ak ñaar. baayam toog fi juróom fukki ak ñaar. cinquante 52. 52. mooy wilaya. mooy wilaya. dafa jël ci wàll yu. daa jël ci wàll yu. tooge fi wilaya. tooge fi wilaya. jóge fi. nee mu jóge fi. magam toog fi. magam toog fi. di taawu baayam. di taawu baayam. di Canaba Ibrahima Seck. sëriñ Canaba Ibrahima Seck. bidiw bi nekk ci drapeau Sénégal. bidiw bi nekk ci drapeau senegal moo waxoon Senghor nañ ko ci def. moo waxoon Senghor ni nañ ko ci def. mu toogal fi waa diine ji. mu nekkal fi waa diine ji. magam toog fi 27 ans. magam toog vingt ans. jóge fi. nee mu jóge fi. Baye Alpha Mamadou. Baye Alpha Mamadou. ñëw toog. ñëw toog. ñaar fukki at. fukki at. ak juróom benn. ak juróom benn. jóge fi nee mu jóge fi Baye Mamadou li Seck Baye Mouhamadou li Seck toog fi ñeenti at toog ñeenti at jóge fi nee mu jóge fi Baye Seex Canaba Baye Seexu Canaba Baye Ousseynou Khoudia Seck Baye Ousseynou Khoudia Seck waajuru sëñ ma dikke mi waajuru sëñ ma dikke toog ci jotaay bi toog ci jotaay bi juróom benni at juróom benni at jóge fi nee mu jóge fi Baye Sëñ Canaba Baye Sëñ Canaba Baye Ousseynou Xaar Seck Baye Ousseynou Xaar Seck ñëw toog ci xadara bi ñëw toog ci xadara bi fukki at yu mat fukki at yu mat sëkk jóge fi. nee mu jóge fi. Baye Cheikh Ahmed Tidiane. Baye Cheikh Ahmed Tidiane. ñëw ci xadara bi. ñëw ci xadara bi. toog fukki at. toog fukki at. ak ñaar ak ñaar. jóge fi. nee mu jóge fi. Baye Serigne Canaba. Baye Serigne Canaba. baay Abdourahim. Baye Serigne Abdourahim Seck. toog fukki weer. toog fukki weer. ak ñeent. ak ñeent. di wahaabu. di jóge fi. nee mu jóge fi. Baye Serigne Assane ñëw. Baye Serigne Assane mii ngeen jàkkaarloo ñëw. di nekk neuvième position. ci tariixa bi ci tariixa bi. Baye Serigne Assane. yàlla na jotaay bi yàgg. mbalaanu sutura mi nga fi fekk. mbalaanu sutura mi nga fi fekk. sa maam andi ko fi. ca sa maam andi ko fi. yàlla na gën a sa mboxtal ci sa yàlla gën a sa mboxtal ci sa jëmm. mébét yi nga fi fekk. yi nga fi fekk. say bàyyi fekk ko. say bàyyi bàyyi ko fi. say mag bàyyi ko fi. say mag bàyyi ko fi. ak yi nga fi ëndaale. ak yi nga ëndaale. ak yi ne ci sa xol. ak sa xol. te mënoo koo koo génne. mënoo koo génne. yàlla yàlla faj yëpp. yàlla yàlla faj yëpp. baax. Seck nu ngi lay nuyu bu baax. nu ngi lay ziar. noo ngi lay ziara. noo ngi lay ndokkeel. noo ko yàlla yàggal. jotaay bi yàlla ko yàlla yàggal. lépp luy fanq. lépp luy fanq. wala lépp luy ay mbir. mbaa lépp luy indi ay mbir. ba ni ko bëggee du amee noonu. ba ni ko bëggee du noonu. na ko yàlla puus. yàlla yàlla puus loolu. te leer naññ. te leer naññ. bàyyi ñu ngi lay nuyu bu baax. bàyyi ma lay nuyu bu baax. ñu ngi lay ziar. noo ngi lay ziara. noo ngi am kontaan te ci yow. ci sa melokaan. ci sa melokaan. ci kër gi. ci kër gi ak ci diine ji ak ci diine ji ak nawlay kër gi ak nawlay kër gi li nga ànd fii ànd ak Baye Cheikh Canaba li nga ànd ak ay nit fii ci Baye Cheikhu Canaba ci biir dëj bi ci biir dëj bi kenn mënu ko kenn xamul nu mu toll léegi rek la may day naa léegi ma day ni bàyyi ma dikke de bàyyi ma dikke de sama xel daa ne ci sama xel daa nekk ci di ko jox ay di ko jox ci di ko jox ay mission di ko jox ay mission mu di ko koy yónni di ko koy yónni mu di ma ko doxal mu koy doxal ndax gis naa melokaanam ndax gis naa melokaanam neex na ma lool tey neex na ma. ay diggante nag. ay diggante. su ci loolu amee. su ci loolu amee. xaritoo da ciy am. xaritoo day am. yërmande da ciy am. yërmande day am. sutura da ciy am. waaye sutura day am. moytonte da ciy am. am. kon ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay nuyu bu baax. ñoo ngi lay ziyaara. ñoo kontaan nañ ci yow. taxawaay yi. taxawaay rafet na bu baax. rafet na bu baax. ni nga mel ci kër gi. ni nga mel kër gi. keroog ba muy ziyaare sa bi muy ziyaare sa wayjur. ci biir xabru yi. ci biir xabru yi. dafa yëkkati mbalaan mi. daa yëkkati mbalaan mi. teg ci kurusam gu tedd gi. mu ni sëñ Ousseynou mii. ak a mën defar bokk. kon loolu nga doon. loolu nga doon. di ko doxe di ko doxe di ko waxe di ko waxe bàyyi sëñ baa ngi lay bàyyi xel. bàyyi sëñ baa ngi lay bàyyi xel. ci sa nopp sa nopp. noppam noppam. jëfam jëfam sa jëf sa jëf. ñoo nuyu njabootam gi mu fekk. ñoo ngi nuyu njaboot gi mu fekk. di sëriñ maa joojo sëriñ maa sekk taawam. di taawam. nekk taawam. mu yar ko. mu yar ko. lu war a nekk ci moom. lu war a nekk ci moom. ay baax baax. ci ay mbaax. mu yar ko sëriñ Canaba. mu yar ko yaru kër sëriñ Canaba. muy yaru kër sëriñ Canaba. muy yaru kër sëriñ Canaba. ci teey. teey ak ci dal ak ak dal yàlla na yàlla suturaal yàlla yàlla suturaal la yow ak sa rakk yow ak sa rakk yi sëñ Moussa ci sañ sëñ Moussa ci biir sëñ Mbay suñu xarit sëñ Mbay suñu xarit mu ngi ci biir tabaarakallaahu tabaarakallaahu sëñ Góora sëñ Góora soxna Jama soxna Jama soxna Sidi Tey sëriñ soxna Tayib nee Seydi Tayib ñu ngi koy nuyu bu baax ñoo ngi koy nuyu bu baax nuyu sëriñ Asan nuyu sëriñ Hasan bu bàyyi móori bu bàyyi móori bëgg baayam bëgg baayam moom ak baayam ñu bokk benn moom ak ñu bokk benn waajur mu tuddee ko ko nee mu tuddee ko ko ñu ngi koy nuyu moom ñoo koy nuyu nuyu bu baax. di nuyu Serigne Madické. di nuyu Serigne Madické. bu Serigne Jibril. bu Serigne Jibril. way juram. way juram. di xale di xalifa suñu maam. nekk su xalifa suñu maam. moom nag muy xaritu maamam. waaye muy xaritu maamam. di ko jàppale ci biir. di ko jàppale ci biir. te jàppale gi du tey. te jàppale gi du tey. kóllëre googu. kóllëre googu. moo tax saa yu xëyee rek. moo tax saa su xëyee. bàyyi ay itam yëpp. bàyyi itam yëpp. Madické ñu ngi lay nuyu. Madické ñu ngi lay la ziyaara. noo ngi lay ziyaara. xaritu bopp. nuyu sunu xaritu bopp. sëñ Ibrahima Dieng. sëñ Ibrahima Dieng. tabaarakallaahu tabaarakallaahu. di ko ziyaara bu noo ngi koy ziyaara. Serigne Mame Baba Diop. Serigne maam Baba Diop. yoral góor gi. yoral góor gi. lépp lu jëm ci armeel yi. lépp lu jëm ci armeel yi. mu di ko taxawul. mu koy taxawul. taxawu bu yiw. taxaw bu yiw. taxawu bu baax. taxaw bu baax. taxaw yooyu yàlla na ko yàlla yàgg. taxaw yooyu yàlla yàgg. waaye juróom di woon mu xaddam bu mag. waaye juróom nekkoon mu xaddam bu mag. ci biir kër gi. ci biir kër gi. yàqu fi. yàqu fi. jëf fi lu baax. jëf fi lu baax. melokaan boobu rek. melokaan woowu rek. moom la am. moom la am ba bàyyi sëñ bi wóolu ko ba bàyyi sëñ bi wóolu ko jël loolu ci jumaa ji jël loolu ci jumaa ji jox ko jox ko ñu ngi nuyu ñoo ngi nuyu suñu délégation suñu délégation Serigne Ahmed Nasir Dieng. Serigne Ahmed Nasir Dieng. yàlla dafa dogal ni. yàlla moo dogal. fii la bokk. fii la bokk. doon la gàttandu. doon la gàttandu. pour indi la fii. pour andi la fii. li ñu coordonné. li ñu coordonné. ci semaine bii. ci semaine ci ay wax. ci ay wax. ci ay jëf. ci ay jëf. kenn xamul nu mu toll. kenn xamul nu mu toll. wante Nasir mooy diine ji. Nasir mooy diine ji. mooy canaba. mooy canaba. mooy Touba. Nasir mooy Touba. mooy Tivaouane. mooy Tivaouane. mooy Laayeen. mooy Laayeen. mooy Ñaseen. mooy Ñaseen. fa kon sëñ Nasir. sëñ Nasir. xam nga ni fii gàmm fii màggal gi toll. xam nga fi màggal gi toll. nga bokk ci comité ba nga xam ni. nga bokk ci comité bi nga xam ni. lépp Mouhamad al Bachir. lépp Mouhamad al Bachir. ci wàllu communication. ci wàllu communication. nga bokk ca biir. nga bokk ca biir. nga jóge Touba démb. nga jóge Touba démb. xam ni lii yaa ko doon nas. xam ni yaa doon nas lii. loolu yitte la. loolu yitte la. Baye Sëriñ baa ngi lay nuyu. Baye Sëriñ baa ngi lay nuyu. mu ngi lay ziyaara. mu ngi lay ziyaara. mu ngi kontaan ci say taxawaay. mu ngi kontaan ci say taxawaay. wóor na ko ni. wóor na ko ni. Cheikh Alassane mii. Cheikh Alassane Sène mii. yemoon ci yow rek su yemoon ci yow fee sa kër ca kees fee sa kër ca kees ngeen jëflante ngeen jëflante mu jël yi jox la mu jël li jox la bàyyi sëñ bi da koy validé bàyyi sëñ bi daf koy validé te day àgg lépp ndax sa jikko ci diine ji ndax sa jikko ci diine ji ak sa mbaax ci diine ji ak sa yar ci diine ji ak sa yar ci diine ji sa teey ci diine ji sa teey ci diine wëllëre ci kër gi sa wëllëre ci kër gi garaat boobu garaat boobu am nga ko bu yàgg li nga liggéeyal sëñ Murtada liggéeyal ko njaboot sëñ waaye sëñ bi kontaan na. délégation bi nga àndal. délégation bi nga àndal. ñu ñoom ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. bàyyi sëñ bi. bàyyi sëriñ bi. da am ku baax ku fi ñëw. da nga ku baax ku fi ñëw. di Cheikh Alassane mi. Cheikh Alassane seen sopp yonent bi. ku baax a ngi ku baax a ngi. ku bëgg yonent bi ngi nii. ku bëgg yonent yàlla Muhammad mu ngi nii. nit na nit. su bàyyee ñëpp su bàyyee ñëpp jàpp jëwriñ ji ñëpp jàpp jàpp jëwriñ ji ñëpp jàpp ànd ko mbëggeel ànd ak mbëggeel moo ko andi fii moo ko andi fii en février. en février. 2015. quinze yàlla da koo teg natt. yàlla daf koo teg natt. fii ci biir réew mi. fii ci biir réew mi. mu def fukki weer. mu def fukki weer. ak ñett. ak ñett. ci biir kaso. ci biir kaso. wante ci waaye nekk gam ca nekkoon. ci biir kaso bi ca biir kaso ba. saalitul saalitul. waxul lu bon waxul lu bon. waxul lu ñaaw waxul lu ñaaw. wante nam ko jàppe woon. waaye nam ko jàppe woon. biir ca biir. xalwa bu yàlla defoon ci moom. xalwa bu yàlla defoon ci moom. ngir bëggoon koo génne. ngir bëggoon koo génne. mu am ay may. mu am ay may. mu wanaat ko adduna bi. mu wanaat ko adduna. te mbirum yàlla. te mbirum yàlla. su la ko yàlla dee jox su la ko yàlla dee jox. da la koy jaay. da koy jaay. bi nga gën a bëgg. prix bi nga gën a bëgg. looloo taxoon ba mu génnee. moo tax ba mu génnee. première déclaration. première déclaration. mu ni bàyyi naa lépp. mu ni bàyyi naa lépp. yàlla wax ci alxuraan. yàlla wax ci alxuraan. ci sooratu suura. sooratu suura. wala man sabara. wala man sabara. wa xafara. wa xafara. inna zaalika. inna zaalika. min azmil umuuri. min azmil umuuri. ku jéggale. ne képp ku jéggale. muñ. muñ. foofu la dogu yem. foofu la ak dogu yem. te dogu. te dogu wax naa ko fi barki démb. wax naa ko barki démb. Ah, ah, ah, médicament bi gën a bi gën a bi gën a faj ay jafe-jafe. médicament bi gën a mën a faj jafe-jafe. mooy dogu. mooy ak dogu. yàlla wax ci alxuraan. yàlla wax ci alxuraan. ci sóortul baqara. sóortu baqara. aaya 153. aaya 153. yaa ayyuhal lazina aamanu. yaa ayyuhal lazina aamanu. istainu. istainu. bi sabri. bi sabri. wa salaati. wa salaati. dañuy yàlla. daf ni yàlla. yéen ñi gëm. yéen ñi gëm. dafa jël baatu muñ. daa jël baatu muñ. xam ne ni mu foore. xam ni mu foore. mu utiliser ko. mu utiliser ko. avant julli. avant julli. ak ni julli foore. ak ni julli foore. mu muñ lépp. mu ni mu muñ lépp. nan la ko doon muñe nu mu ko ne yonent bi mu bëgg xam ne yonent yàlla Muhammad mi mu bëgg natt bu nekk am na ko natt bu ne na ko bala mu am résultat balaa am résultat dañ ni dañ ni dañ ni al mu alxaliilu dañ ni alxaliilu huwa al muhibbu huwa al muhibbu allazi allazi laa xalala laa xalala fi mahabbatihi fi mahabbatihi soo bëggee soo bëggee da ngay bëgg rek da bëgg rek ba doo ba ki ngay bëgg ba ki ngay bëgg dootoo gis benn defoom dootoo gis benn defoom yonent bi yonent yàlla Muhammad dani makaanul xubbi. daf ni makaanul xubbi. inda naasi. inda naasi. xalbun. xalbun. wa kulli. wa kulli. fii hawaahum. fii hawaakum. surtout xalban. surtout xalban. ne xolay bëgg. ne xolay bëgg. moom nag daa soppi jëmmam. moom nag Cheikh Alassane daa soppi jëmmam. def ko xol. def ko xol di bëgg yoon. di bëgg yoon ci Yàlla Muhammad. ne maqaama boobu. loolu la fi ñëwee. loolu fi ñëwee. ànd ak bokkam yu yi. ànd ak bokk yu tedd yi. di ay nawleem. nekk ay nawleem. nit suy jóg. nit suy jóg. day ànd ak ay nawleem. day ànd ak i nawleem. soo ànd ak say nawle. soo ànd ak doo def ay jombu teef. doo def njombu te moom paase na lool. te moom paase na lool. nga ñëw sa kër baay. nee nga ñëw sa kër baay. fii. fii kër la. kër la. fii. si xaalisaan fii. kër yonent bi la kër yonent yàlla Muhammad la. fii mooy ahlu bayti. fii mooy ahlu bayti. maam Amari Ndaak Seck. maam Amari Ndaak Seck. bindul. bindul mënoon naa bind. mënoon naa bind wayul wayul mënoon naa way mënoon naa way bi muy dem bi muy dem daa bàyyi lépp daa bàyyi lépp ni leen jàpp leen ci alxuraan ni jàpp leen alxuraan loolu la yonent bi jàpp loolu la yonent bi jàppoon isa kunta saa xubbin isa kunta saa xubbin attat ko wilaayatin attat ko wilaayatin maxtuumatin maxtuumatin bi damaanati bi damaanati addinaani bi damaanati addinaani bëgg mooy lépp bëgg mooy lépp yonent bi ngay bëgg yonent bi nga bëgg ñetti nit rek ñetti nit ñoo ma sa tudd yonent bi ñoo ma sa tudd yonent bi ci adduna ci adduna yonent bi ñëw yonent bi ñëw ñeenteel leen ñeenteel leen Muhammad bun Imran Muhammad bun Imran Muhammad bun Sufyaan Muhammad bun Sufyaan Muhammad bun Ahiha mun Muhammad bun Ahiha aljalaa aljalaa ñetti ñii. ñett ñii. ñoo mas a tudd yonent ñoo mas a tudd yonent bi. ñoo mas a tudd Muhammad. ñoo mas a tudd Muhammad. mu ñëw ñeenteel leen mu ñëw ñeenteel leen. ndax ñoom dañ daan wër ci xool yi dañ daan wër ñiy seet di xool. nee dañ daan wër ñiy seet di xool. jibarkat yi ni leen jibarkat yi ni leen am na kuy ñëw am na kuy ñëw ku tudd Muhammad ku tudd Muhammad ñoom tam seen soxna yi wan na lor ñoom seen soxna yi wan na lor ñuy njëkkalante ñuy njëkkalante pour tudd baatu Muhammad boobu pour tudd baatu Muhammad boobu wante keroo ngénte li waaye keroo ngénte li ca la leen yàlla juuy ca la leen yàlla njuuy xam ni kii du moom xam ni kii du moom ni Muhammad mu ni Muhammad Ahmad Ahmad annabiyu annabiyu arrasulu arrasulu nabiyu tawbati nabiyu tawbati nabiyul Muhammad nabiyul Muhammad taaha taaha yaasin yaasin alxaasiru alxaasiru ba mu jeex tàkk ba mu jeex tàkk alxaasiru nag alxaasiru la mag ñi jël la mag ñi jël tëggu ko tëggu ko mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne moo doon topp moo doon topp tànk tànk yonent bi tànk yonent bi ci ay bëgg-bëgg ci ay bëgg-bëgg loolu la mag ñi jël loolu la mag ñi jël maam Amari Ndaak maam Amari Ndaak loolu la jël loolu la jël loolu tax soo ñëwee moo tax soo ñëwee buntu kër gi buntu kër gi day fees dell ak mbooloo day fees demee ci see euh, euh, soo demee Touba boo demee Touba Naasir mi xam na Naasir na nit ñaa ngay jël jël nit ñaa ngay jël jël nga dem Tiwaawan nga dem Tiwaawan noonu noonu nga dem Ñeseen Ñeseen noonu noonu dem Laayeen Laayeen noonu noonu Ndiassane Ndiassane noonu noonu alxaasir boobu alxaasir boobu moo ñu doon gëstu tànk mag eh, tànk yoon moo ñu doon gëstu tànk yoon ci yàlla Muhammad am ci bëgg-bëgg boobu am ci bëgg-bëgg kon yow soo ñëwee yow daal soo ñëwee ni kooku la ñëpp bëgg ni kooku la ñëpp bëgg moom la ñëpp fonk moom la ñëpp fonk nga ni moom laa bëgg nga ni moom laa bëgg da lay delloo njukkal da lay delloo njukkal wante bëgg-bëgg boobu waaye bëgg-bëgg boobu yàlla na ci la ci sa taxawaay ci réew mi sa taxawaay ci réew mi sëñ bi gam na ko sëriñ bi sëñ bi xam na ko sëñ bi xam na ko. njaboot gi xam na ko njaboot gi xam ko. ndimbal gi ngay ndimbal askan wi. ndimbal gi ngay dimbali askan wi. ndax li symbole la ci. nee li symbole la. ñu ñëw ci ñu ñëw ci ga ñu ñëw war a ñëw ci kaawu yonent bi. nee nga ñëw ci kaawu yonent bi. xam ne li leen ciy fekk. xam ne li leen ciy ba ay ñaawteef warul leen a fekk ci seen yaram ba ay ñaawteef warul dugg seen yaram nga andil ko sëñ bi nga andil ko sëñ lu gën a rëy lii waaye lu gën a rëy lii amul sëriñ boo fi gis sëriñ boo fi gis mu àgg ci yàlla mu àgg ci yàlla weer da tax mu àgg ci yàlla weer da tax mu àgg ci yàlla nga andi symbole bi ñu àgg ci yàlla nga andi symbole bi ñu àgg ci yàlla lu ko gën a rëy lu ko gën a rëy amul amul kon ñetti symbole yi nga andi ñetti symbole yi nga andi muy yonent bi yonent yàlla Muhammad ànd ak say nawle ànd ak say nawle andi kurus andi kurus ah, loo bëgg leneen waaye Cheikh Alassane loo bëgg leneen Cheikh Alassane Cheikh Alassane njaboot gi gërëm na la njaboot gi gërëm na la islam bi gërëm na la islam bi gërëm gërëm na la réew mi gërëm na la réew mi gërëm na la mbokk yi gërëm na la mbokk yi gërëm nañu la wëllëre yi gërëm na la wëllëre yi gërëm nañu yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm la defal la jàmm defal la jàmm ak sutura ak sutura ak xel mu dal ak xel mu dal asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu ne bi ñu koy jàpp ci ci bi ñu koy jàpp fii ci réew mi nee na di ko dugal ci kaso bi ne danoon saaga yonent bi nee na ma taxaw ni kenn waru ko fee saaga ne ñu jàpp ma góor kidnappé ma nee na kidnappé ma treize mois. état bi yónnee ma ndaw. nee na état bi yónnee ko ndaw. fukki yoon fukki ma balul ñu bàyyi ni ko baalul ñu bàyyi la. mu ne balu ci yéen ni mu ni balu ci yéen lañu ko séntu. pàcc ma na pàcc ma. lii moo ko nee na lii moo ko yàggal foofa. sëriñ bi nag sëriñ bi nag. mu xamal ne am. nee na mu xamal ne la procès musta am. dafa xëy ñu bàyyi nañu la. ñu ko bàyyi nañu la. ñaari fan avant. ñaari fan avant. laa gént. laa lay waxee. nee micro lay waxee de. mokkal. mokkal. suurat rahman. nee na suuratu rahman. ñu wax ma ci sirru. nee na ñu wax ko ci sirru. nee na mudd hamataani. nee ma tee ko. sama ñëw bi ma ñëw. nee na ñëw gi mu fi mujjee ñëw. ñëwaat tey jii. nee ñëwaat tey jii. man yokku na. nee na yokku na. ba yëg ko ba yëg naa. nee yokku naa. ba yëg ko ba yëg ko. lii ma ñëw nii. nee lii ma ñëw it nii. ñëw. laataa wax na ma. ko ni. su ma amee ndimbalu yàlla. nee na su amee ndimbalu yàlla. ba am jotaay ak yow. ba am jotaay ak yow. su ma su ñibbee. nee dana yokk. ne li may wax na nga baal ko sëriñ ci loolu mu ci sof jërëjëf nee na yaa ko yëkkatee bu ma ko mu ànd ak symbole ismulaayil ahzam bi ñuy wax ismu saati ak turu Mouhamed Sawaali waxtaanu baatin nag kenn ñaar ëpp na fan laay def kon ma jaaxal allahu muhammadu ne boo demee ca tasaw tasawuf ñu ngi ko tudde samaaniya samaaniya taxarruuf waaye nag soo demee ba ci biir nag am na fa am na fa nag weneen tur wu ñuy wax nihaayatu sukrul ilaahiyati nee nga dem ba ci biir mënee su ko répété de mu nga fa tudd nihaayatu sukrul ilaahiya nee kii man daal gis naa ci kéemaan dama ko jox sama benn taalibe bu ñuy wax maa jooja faal nekkoon Kodiwaar ma won ko tarbiye bi tarbiye boobu ka ko yor te xam ko te am ca xusuusiya ne su la ko joxee nga ñibbeeg moom sa kër. di liggéey yàlla xam. yàlla xam. adat ba nga cay liggéey. waaye guddi gi nga egg ci sa borom. waaye guddi gi sa borom. takkuwul ci noor ak nawet. takkuwul ci noor mbaa nawet. guddi gi nga egg. nee guddi gi nga àgg. kër gi nga ne. bàq dana fa tooy. bàq ah! ma jox ko Maajooja Faal. ca Côte mu koy liggéey ne ba yàgg yàlla dugal ko ci benn boyin yàlla dugal ko ci benn boyin boyin bi jublu penku riir mi mi yàlla yaa ngi may dégg yàlla de machine bi di jàng ayatul kursi machine bi di jàng ayatul kursi mu bëgg a dugg ci mu bëgg a dugg ci jant bi ne mu bëgg a dugg ci jant bi fit wi àttanatu ko. fit wi àttanatu ko. nee mu reculer. fekk ma tukki. fekk ma tukki. ma dikk mu wax ma ko. ma ne ko tuuti kon. nga ni meññ ci yontu yàlla Muhammad. jant bi. kenn ko yàlla du ko du ko kenn. yàlla du ko géntal kenn. du ko wan kenn. du ko wan kenn. te jant boobee. te jant boobee. du misaalum yontu yàlla Momadou. du misaalum yontu yàlla Momadou. man daa kuris gi moom moo ma jaaxal Cheikh Alassane nee gi jaaxal na ma. nee kuris gii ak kamaa jaaxal waaye Cheikh Alassane Sène sopp yonent bi yaa mën a teral doomu soxna yaa baax yow yaa yiw yaa tedd yaa xam fi ngay jaar nitu yàlla ba jot ca xol ba ndax man bi ma toogee fii recevoir na fukki weer wu topp ñaari fan ñett ñeent jàpp juróom teraanga bu ne fekk na ma fii am na ku ma yónnee montor boo xam ni or la ma ngi ca néeg ba boole ca ñetti million waaye Seex Alsaan sa lii ne teraanga ji ak rëy waaye teraanga ji ni mu jame sama xol maa ngi wax ak yow sama rongoñ bëgg a génn da ngaa laal sëñ bi fi mu bëgg ne yàlla ah dana la fay de Cheikh Alassane yàlla dana la fay de alaaji ngañ saar ne alaaji ngañ xool kurus gi ne sama xol sedd na guy ne sa xol bu sedd bi tax na damay dolli baneen muy bi ma yoroon sama loxo nii nag la ko defale woon sa sa mag ja Baye Abdourahim Seck ne du sama loxo nag de <laughs> ah jërëjëf Cheikh Alassane mhm, Alaaji Ngañ xanaa dangay jël gii ma jël gi ab setema sëñ ma dikkee sa waajur ne mu ngi lay nuyu ne bi ma commencé recevoir ak léegi fii ma toog ngërëmul sëriñ Muntaxa mu wax mu wax. ci téléphone. nee ci téléphone. dafa wax daa wax. ba xol bi tooy. may yëg ne xol bi tooy na. mu yónnee ma teraanga yu bari. mu nee mu jox ko sëñ Basiru Mbàkke Mbul. gaare beneen oto. def ci ab dund. nee Sëriñ Mbay Si Mansour. toog na fii. nu waxtaan ba xolam sedd guy ci ëllëg sa nag doom ja tontuma ma wax ci liñ doon wax président Macky sàll toog na fii nga toog daf ni ca këram Serigne Hassan Seck daf maa bëgg ba ma yëg ni bëgg na ma kilifa diine yi. kilifa diine kenn ku ci ne. sa fekk na ma fii. nee kon. man. arrivé naa. man arrivé ñépp fekk nañ ma fii. ak wax ju rafet. teraanga yu bari. waaye Seex Alasaan sa teraanga ji. ne dafa tedd jërëjëf ne man 61 laa commencé liggéey turu yàlla ba fii ma toog tey genn guddi gu ma fande liggéeyal sans borom ne amul wala su amee feebar lay doon ma fay ko ca yor Seex Alsaan maam Asan ne dina la ñaanal alhamdulilah sëñ Madike nit ku baax ku ne ànd nga ak moom ñëw fii jox ma ko nee ma xool ko muy nit ku tedd te daa bari liggéey nga ci man ba am cër maa ngi lay ñaan cër boobu nee bu ko jamono yàq mm-hmm. bu la jamono mënal dara ne yàlla noppi na ci lépp noppi na lépp lépp pare na document ya ba teg joxe muy dox rek joxe muy dox rek moo ci des yàlla noppi na ci lépp ci lépp ma bëggoon nga góor góorlu bu la jamono mënal dara li nga liggéey ci man ba am ko am na solo nee bu ko jamono yàq na nga nekk sama xarit nekkal sama doom nekkal sama xarit nekkal sama jëwriñ nee bu ko dara yàq Mori Ngoone jërë ngeen jëf Cheikh Alassane ne yow maa ngi wax di waxaat rek ne fii mu nekk nii sama xol daa tooy ba sedd guy yàlla yàlla dimbali la yàlla na yàlla dimbali la yàlla na yàlla dimbali kurus gi ne du ko maye du ma ko tayle du ma ko. ubusle ugus ubusle. ko ak cig tëgët. du ma ko ajit nag. cig tëgët cig tëgët. kurus gi daal dama koy ŋàbb. kurus gi daal Cheikh Alassane dama koy ŋàbb. ba dogalub yàlla wàcc ci. yàlla wàcc ci. dogalub yàlla wàccee nag. bu dogalub yàlla wàccee nag. ah laa ca mën bu ko alaaji ngañ sàccul de jox nga ko moom du ko jël. <laughs> bay bay bay Assane bay Assane moom mii maa ngi jéggalu ci kaddu gi ma yëkkati. ak la doomi loo loo ko gën a ñaanal lu mu gën a jóg kaw xeeb na. dana jóg de. ndax ndax ñi ñi fi toog ñëpp mën na noo seede. ci li may wax. kenn ku ci nekk ci ñun dimbili na la. xar xari tabaski yi moo ko mën ci ñun. yéere yi. Mhm. moo ko mën ci ñun. Mhm. xaalis bi moo ko mën ci ñun. billaahi kenn ku ci ne bu jëloon kaddu wax ci moom doy na sëkk. nga nga ni Cheikh Alassane Sène képp laa ndal cofeelam ci yonent bi nag moom waxu na ko xam na ni boo ko ñaanelee mu yokk te lu mu gën a yokk ko dama tarbiyewu ji Banjul ne man dama tarbiyewu ji Banjul te ja te Jaasong Touré département de Maysa Konko département de Maysa Konko Trans Gambie ne bi ma yeewi daf ma ni sëriñ Xasan soo demee bul toog ci pénc ku dikk fekk la fa bul li ma la ciy toxal nag mooy loo am loo am joxal nit ñi loolu la ma dénkoon juróom benn fukki bari ko ci ab dund ñaari semaine yi séddale naa ko cana ba sama xilaafa yi gii nga xam ni. damaa bëgg a liggéeyal Amary Ndaag. damaa deful. damaa nar. lépp lu fi ñëw. ma jox ko jaami yàlla daal laa nar si alsan nee nag ma ci loolu. man damaa bëgg. lu ma am. seti maam Amary Ndaag yi. ma jox leen ko. nee du ma leen ci appelé. yem ci ñoom képp waaye damaa bëgg a liggéey nang ma ñaanal damaa bëgg a liggéeyal sama maam bëgg a liggéey ba am ngërëm man loolu laa bëgg wutuma ci benn intérêt suuf si bëgguma jëluma ci ñaari mètre duma ko dëkke duma ko jox samay doom li ma am doy na ma jërëjëf Cheikh Alassane sëriñ bi nee nga tàllal say loxo nee maa ngi lay ñaanal ñaanu xol amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin rasulillahi wa bi sayyidil faruqa khatayn fi sanbi aw anta mudi suni bakar jara imana yalla tum habijayi muhammadi isa su fi almaxbuubu jaasal mubahraju booy way wayal maami